waa damay laaj vidéo jàmboo li ngay jël wala photo wala audio di ko tasaare si internet ndax dañ la siy dig ay fay. déedéet ay duma kay da lay jural ndax suñ borom nee na inna alladina yuhibbuna an tashia alfahisha fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal axira ñi nga xam ne dañuy bëgg di tasaare musiba yi ak ñaawteef ci kaw suuf pour ñépp xam ko mbaa ñépp dégg ko kooku dina am mbugalu àdduna ak alaaxira te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni nit ki mun te yàlla mukk fii li mu bëggal boppam bëggal ko moroomam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne al mu'minu mir'atul mu'minu jullit bi jullit bi mooy seetoo te kuy xool seen gis ci am sikk jàppal ni sikk bi ci yow waaye nekkul ci bi te mooy réew xam ni dangay jëf téeméeri jëf kenn du ko yëg waaye bés boo juumee ba benn bu bon ñépp yëg te sallallahu alayhi wa dafa wax ni kafaa bil mari isman an yaquula bi kulli ma samia fenkat dëgg mooy koo xam ni lu toog ci noppam jottali ko lum gis waxe ko te yow mi nga xam ni yaay xas doomu aadama ci juum gi mu juum wala seytaane man ko ba mu def naka sudul noonu est fi mu jaar ba lii dal ko soo fa jaaroon soxna yi ñu a sama xel moom. lii lii ah, jëf ñaaw. sama ne ñu jëm waaye ma la mbëkkee dina pousse. ne lii yéen nga ko jigéen te yéen góor ñi kenn demul ngeen des. ndax luñ dugg suba ba ngoon rek yéen a ñu ci dugal. nga ba tey waaw boo gisee lu tax ma wax loolu nitu yàlla bu seetaanu bëgg a yàqal ci yi la ngay jaay te kenn ku nekk yaa ngi laaj jigéen lu mu doon ndax ku ne amoo doole te am doole ñëpp nga mën leen a yëngal war nga ñoo wax ki doon. ñàkk a xam suñu valeur rek moo tax waaye bu xamoon nit ñooy ñan. duñ def lu bon te duñ ko wax ndax borom daraja joo fi dégg jigéen dafa meññ te jigéen mooy yaay jigéen mooy mag wala rak kon war naa xam bu baax mooy kan ndax mooy ndab li nga xam ne fa la yàlla suñu borom di denc te suñu borom daf fonk lool ba moo waral ñu ngi bind leneen lu dul yow ngeen bokk penc mi mais dama laa bàyyi xel lool moo tax soo góorgóorloo dangay nekk tànneef te ku mun ci ànd ak yow nekk tànneef jigéen mooy àdduna mooy usine bi nga xam ne si moo war a doomu aadama te yàlla su boroom daf koo bind pour mu baax daf koo bind ngir mu teey daf koo bind ngir mu normal ndax ci moom la nit du normal yi te yow xale bu jigéen bi yaa ngi làqatu ci sa ginnaaw téléphone di chantage ay kilifa kenn mën na koo bañ a xam de waaye bul fàtte ni am na ay malaayika yu ànd ak yow te loo mën ci def dinañ ko bind ndax wa inna alaykum la xaafisin kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun te yéen góor ñi jot na pour ñu waxaat ak yéen ñun ñoo sonal góor ñi de déedéet rajo yi lay waxee ne yéen góor ñi da ngeen ñoo war comprendre ndax ñun jigéen suñu xel matu li suñuy ween sa géey noonu la suñu xel sa géey kon da ngeen ñoo war a def suñu cër xam ñooy ñan te yow xale bu góor bi yaa ngi fowee xale bu jigéen bi te buñ la laajee ngeen doo takk ku amul ndaw ndax bi ngay fowee ndaw si xalaatoon nga ni bis dina ñëw nit bëgg si ko di xool ba xam am na ndaw te xale yi góor yi Muti balik Bagunya lah Tanya saya khemim Tak gila khemim Mula kami Tahu bagi aku Tersudul yang minyak